mom la bu Sofiane ñewé di def ni pour bëgg ñu defe ne fii mu bëgg ak ak ciol la ok aleykum salaam barakallahu fikum ok naka lay ñëw rek ñu ko togal ci wetu Bilal muy xolaat Bilal ndax dina tok ci wetam am jeet dal ni ko toogal fii yi xew foofa xewu fi mu toog bu baax a baax bi laal ni ko dindil yi fii li ci xol bi rek moo ci am solo inna allaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum mu xam ni rek keroog am na lu soppiku bu ñetteel ba mooy gëmloo gi ñu gëmloo nit ñi ndekete njiit du pouvoir malheureusement loolu moo tukkal àdduna bi parce que dañu gëm ni njiit pouvoir la fekk njiit melokaan la moo tax bindikat yi di wax ni nit nit mbooloo mi dinañ ko fal sharia ñëw folli ko waaw nit mbooloo mi dinañ ko fal sharia ñëw folli ko nit mbooloo mi dinañ ko folli sharia ñëw fal ko moo tax bu bëgg nekk njiit bokk comme xamaguloo nooy nekk kilifa lu mu bon bon ñetti jikko war nañ koo miin ci yow bu jëkk bi mooy xam diine diine fuñ koy jaarale diine nag ak foo ko mën a jaarale boo xasee ba dindi tëralinu tëralinu yàlla ak bu yonent bi loo sob sob sob sob sob diine ja dana tab tàggoog yóbbal yow bees lu lu jara dégg la diine ak loo dégg dégg jamono loo am am gis-gis loo nekk nekk ku pratique wala même ku pragmatique ak yëpp bu la ci kenn nax boo bëggee yóbbu diine de la jaar ci li yàlla tëral ak yonent bi ba noppi parce que wolof nag moo wax ni ko dem ba xamatuloo jëm da ngay dellu rek fa nga jóge woon tax diine nag bu demee ba mu wóor ko ni fi ko bokkul ak fi yàlla ak yonent bi waaj pour mu jëm fa yow boo wàññi ko moom mu wàññi dellu ci yàlla ak yonent loolu moo lay wan ni dafa am yu nga xam ni njàng mu bareek waraate bu bareek yu kenn xamul warul nax nit ki ba mu fàtte lii lu cosaanam maanaam comme li xew ci jamono sunu mbokk naar yi bokk na ci seen yitte léegi ku fay jàng ci léegi bu leen wóoree ni ci sunu réew yi nga jóge li ñuy njëkk def mooy ñu laver sa cerveau ci li ñoo tudde tariq wan la ni la bidaa la yonent bi bàyyiwu ko fi woon lu ne lu ne lu ne ñu wax la ko pour wax la dañ ñuy fontoo il faut dire la vérité dañ ñuy fontoo ñoom ne nañ yonent bi bàyyiwu ko fi nangam nangam kon bu ñu jël te tey boo demee ca màkka ca alxaramul makki ca jàkka ji boppam am na ca porte boo xam ne baabu faad lañ fa bind baabu faad ci wetu baabu jibril jabrail bu fahd ci wetu babu jibril jabrail man fi bëgg la waara moom d'accord na ne en tant que roi d'Arabie saoudite war nañu jël turam jox ko benn bunt ci alxaramul makki te ki tax tax ki tax woote yonent bi soo xewul la mu tëral ba tax soo xewul mu gëm loolu ni la amul kooku dollar yu ñu lay jox jaru ko moo tax man may bég fi gan gu jógee charq jógee di gis ku ne di yëngu ku ne di sañse ndax ñoom mais ñun duñ ñu ci boole اتكفى على ولان نوبوكو الاسلام بي مي نون وجي لانيو فور جون باسكو لي ني سوخلا سي الاسلام موي كوي رام بور نيوم تو نيو ني جانغال ليغي سي اسباب الخروج من عباده العباد الى عباده الله ba tax nag kon yitte boo am ak yeewute goo am ak digg goo am ci jamono lu ne xamal fii yoonam nga jaarale ko ci ba noppi mooy baat bi suñu cheikh doon nettali ca évêque baak doom ja ba mu ko tàggoon ni ko du ma bëgg dem jàngi sa diine bi te mu ni ko waaw kaay ñu ànd dafa ci loxo doom ji ñu ànd ba ci biir église ba ba ñëw ci fi Isa ibnu Maryam ñëw mu ni ko gis nga kii naa mu ni ko su jootal xale bi xaw a jaaxle mun ko su xale bi su ba noppi mu ni ko bii muy jëkk mun ko parce que jàng bi d'accord aayul mais nangu gi mu njëkk di farata am na loo xam ne boo ko nanguwul ni da koy jàngi boo dajee ku la ko yéenewul bu paree ci yow rekk nga weddi lool bu ñaareel bi mooy diine ci boppam ñaar yi ciy jotele nit bañ la échappé pas-pas ak jihaad nit ñi nag buñ nee jihaad ñu defe ni mooy jaasi parce que yonent bi jihaadam la mu tolloo rek loolu la def parce que arab yi ñu doon dundal passé wuñu ci seeni aada bu ñoo am lantee génn jaasi defaru def affaireu garmi ku man sa morom rek def koko. bobu non loolu xew motax tax moom itam ci loolu la ak ñom mi jihad demono bu nek ak lañuy jihadé waye ken waaw jihad kenn du jihaat nag te amuloo pas-pas parce que day yaq ken du am pas-pas yi tok di xoole parce que jamono bu ne am na ñu taxaw pour yaq li nga yor Quanto alla mek ibir jihad dera pas banyam parce que ku bëgg mbolo mi ni la yay goor ba nga def dérapage ci bir jihad bi lélé nga yakal l'islam lu upp lu ko nonam dul yakal moo tax muy laaj ñu diko nat pas-pas bi bu jiitoo yàlla defal la sutura mën nga jihaad ji nga seet naka nga koy orienté ba li mu war a servir mu servir ko te du am dérapage ñetteelu jikko bi moo di alquran nekk sa guide فسكال القران ان هذا القران يهدي للتي هي اقوى ويبشر المؤمنين جامونو دا نعم فمي تولو فو خامني كو بغاتي ديف جيد بو واتول من غرير waye kon nga jëkki jël alquran def ko sa base ko andal bu jaaré yoon da xam bu jaarul yoon da xam waaw tax kon alquran nek sa base nek sa guide d'abord kenen kuy ñew soga ñew ñëw kooku farata lay doon ci yow ko defé nak nga toftelé étape yi parce que alqiyada aqida d'abord ñaareel ba sharia ah ñetteel ba masuliya ñeenteel ba xidma juróomeel ba riaaya waaw état bu pas-pas moom ngay njëkk a sonne ba mu wóor la ni pas-pas bi rëcc na ñaangi ko waxin la parce que pas-pas dafa am fu muy commencé ba ba rëcc tentative yi wala tentation yi bu rëccee nag tentation yi ba noppi nak la ci ca des yittey taxaway lay don bu passé fofu moom pass pass bi ñaareelu étape bi moy li yalla tëral nga tënk ci sa bopp bu paasee boobu ñetteel bi moy bo waree jël sa responsabilité ca la nga tollon nga jël ko mais responsabilité bi boo ko jëlee ba noppi ñentel ba moy nga xamni nak du tiitër am na loo xam ni ku ko yenu booy nga xam ni ay jaamu nit ñi mooy xidma bi waaye itam boo ko defee ba noppi nag nekk maanaam nekk jaamu nit ñi waxuñu nga ñàkk fayda ku jóg rek ni la jógal déedéet maanaam servir nit ñi ci condition yi nga ko war a defee nga def ko ci te doo ñàkk fayda waaw juróomeel bi nag mooy aar aar li ngeen bokk parce am na loo xam ne ku ko liggéey ba noppi bàyyi noonu te wujj waa ngi fi noonu baa ngi fi boo otul boo del doo ko fa fekk moo tax taxawaayu aar mu ëpp doole ci liggéey bi waaw du woon bëgg xeex agug njàmbaar aar liggéey bi moo taxoon yàlla di ko santaane waaw mu mel ni nag am na lu ëpp def ci jamono l'islam bi dafa am benn shaayir bu toog xolam jeex ndax dafa toog ki nekkoon alxalifa nekk amir al muminin faatu te faatu gi deful dara nit ñi yëngalul nit ñi choqué wu leen جنة ولا نفعل كنن في بلاسم منك أمير نك الخليفة نتني يجون ينسق دفن يو كنن الخليفة منكون عمنا لو خو خليفة مات لم يحزن به أحد وآخر قام لم يشعر به أحد كن عمنا لو خو ma tax njaxas baaxul boo jaxasee yu bokkul dañuy perdre valeur te bu ñu perdre valeur yi la mu daan def ci nit ñi dootu ko def am na koo xam ni la mu war a doon bu ko doonee war na bu fi jógee ñépp yëg ko am na koo xam nit la mu war a doon bu ko doonee bu bu bu bu toogee ca ba place ba war na ñëpp yëg ko kon nag bu ñaar yi amee te yëguñu ci benn kenn tiisoowu ci benn am na lu xew kon léegi njiit defatuñ ko ci wàllu bayaa lu bayaa dañ koo def rekk ci yaama neex dinañ ci ñëw mu ngi ci biir danañ ci ñëw waaw mu mel ni nag kon wolof mooy wax ni ku tëb dal ci sébb dese nga beneen tëbin ku tëb ba dal ci sébb wallaay dese nga beneen tëbin jullit jullit yi bi yàlla di ñaan ñu nekk ummatan wasatan un peuple repère booba dañ daan mëtal lu dara dégg la bi yàlla di leen def ñu nekk peuple repère peuple repère mooy ku nga xam ni ci tënku gi nga tënku ci li ñu la jox te yokkoo ci wàññiwuloo ci feneen fu nit jóge ca la mu ne ñu yokk ca walla ñu wàññi ca ba tax mu gedd bu ñëwee ci yow dabaatal la mu yoroon jullit yi ci seen jamono yàlla dafa bëggoon yahud yi nga xam ni dem nañu ba mënatuñoo watatu ci watitu Muusa ak nasaraan yi nga xam ni dem nañu ba mënatuñoo watatu ci watitu Isa ñu bañ leen perdre liñ leen di bañ a perdre mooy bu ñu dellusee ci diine yonent bi fekkaat fa watitu Muusa ak watitu Isa mais kooku nag ñoom ñoo ko man def ñoom jullit yi moo tax jullit li ko yàllay doye mooy mu mëtal mais doyewu ko pour mu yi

mais pour ñu demee ba yi complément, lu ne ci bi complément lañ ci sujet dafay doy waar moo tax ñaanul ñu leen ñu mottali daf leen ñaan ñu mëtal waaw Non, lay tax des lu mu wax yàlla nee na xam ngeen ni bokkul ci sama aadamay seetaan bi ñu demee ba mëtalatuñu xanaa di seet ñu ñu mottalil la ñu yëgoon ci seen bopp yëgatuñu ko sag ba sàggiku na yàlla nee na leen xam ngeen ni bokkul ci sama habitude may seetaan duma setan sama sama sama jër waye tam fokk ngeen xam ni may bu may jóg dafay am luy tax may jóg yàlla ni leen nag ña ma xamoon démb xam leen ca pas-pas ba xam leen ca wér xam leen ca dëggu ga xam leen ca détermination ba fekk maa ngi leen di gis sama loxo ci biir waye buma ko gisatul nak setan wala fi nak xawma ñoy wax ni setan na dakk ci ndaje mais bu doon setan kesse kesse la mais yàlla sunu boroom xanaa xamuloo ni boko waré waree mu jàppale la nga nga xép taxawayam ba wuti fenen kula jàppale yàlla sat du la satle yow jullit bi sa noon lay satle mu tax xaqiqa garaaw la ilaha illa allah